ñu dem ci euh, xibaaru biti réew yi am na ñaari euh, drone yu Ukraine yoo xam ne kon euh, dañoo daanu ca Moscou ñu ne Russie ci boppam ñoo leen daaneel Cheikh Tidiane ci suba la nag waaye defuñu victime maire bu Moscou moom moo xibaar lu ni mel ba pare di tuumal Kiev ni ab attentat terroriste la ñu bëggoon def foofu ca capitale ba ci fàttali rek ca Moscou nag ay attaque drone moom ña ngi koy waaj a miin am na ci sax boo xamee ni daloon na ci ca Kremlin ci jamono yee ñu génn ci fàttali tamit Kiev tamit dafa fayu te démb ci guddi euh, fële ca Odessa Russie tamit dóor nañ fa ay drone ba waa Kiev ñoom tamit jàpp ni app attentat terroriste la euh, dañuy dem ca RDC foofu nag euh, fukk ak ñeenti doomu aadama ñoom ñoo fa ñàkk seen i bakkan bokk na ci juróom-ñeenti gune ci ab fusillade boo xam ne benn militaire bu nekk ca armee ba moom moo def lu ne mel ndaxte moom doomam dafa faatu ñëw fekk ñu rob ko yëf yi métti ko mu jël fetalam boom ñoo fa nekkoon yëpp muy lu doy Cameroun nag fukk ak ñaari nit ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci effondrement benn immeuble bu daanu foofu ca Douala juróomi nit am ci ay euh, gaañu gaañu ci ab bilan provisoire bu mairie bu Douala ca Soudan juróom-ñeenti nit euh, faatu ci ab crash d'avion ñeenti ñi ay soldats lañ ca aéroport euh, bu Port Soudan yëf ya nag te bërëb boobu nag sax guerre bi yeggu fa guerre boobu nga xam ne commencé na ci fukk ak juróom ci avril ba ñu yi ñu weesu armée ba nag jàpp communiqué nee na ab incident technique euh, moom moo euh, waral crash boobu la ñu jeexale ko ci wàllu Twitter ak euh, changement yi nga xam ne ñu ngi koy xaar ci logo bi ak sax ci tour bi picc bu bëla boobu du fa nekkati app X daal moom moo fay nekk muy changement yoo xam ne nag métti na ñu bari ci usager yi jàpp ni Twitter daal daanaka faatu na fi mu nekk nii sax entreprise ba daanaka xaaj bi ci ay personnel daf ko dàq revenu publicitaire am tamit euh, daanaka wàcc na ba yegg ci xaaj bi soxna naata. Hmm, merci beaucoup Cheikh Tidiane Diaw ci xibaaru bi ci réew yi bu leen fàtte ci kanam euh, de quoi est-il le nom ak Abdoulaye Diop euh, léegi ñu jàll ci xibaaru météo yi.